waaye itam di def lu ñaaw cim tribune yéen kaay xamal ma ko naan man loo ci manti de git France moom su bëggalee jàmm senegal dina ma jaaxal wala it juboo gi mu juboo ak sunu sàll daal moo neex ba mbaa juboo gi jéggi dayoo yéen kaay bi dee média bi xëy samp bu laaj naan mbaa du nag ay arme yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci jamono fitna di guerre gisuñu ko nag ci suñum réew di Sénégal laaj la samp de ne lii may wax nag dub laaj dëgg la ñetti façon grenade lacrymogène daal dinañ leen di gis ci réew mi ñeent ñoo xam ne ñooy sànni grenade yi wasaare ko jébbal ko manifestant yi ñu koy noyyi bien bon bokk na ci woto yi nga xam ne moom la takk der yi di jëfandikoo benn blindé boo xam ne lu mu yées yées am na ca génn goo xam ne France la jóge ci blindé yi turbine naan maan te yemul sax ci manifeste ki nga xam ne nag mooy gën a jox ngànnaay ñi nga ne mooy sunu takk der yi ab société su soo xam ne ma nekk nag ca sart te matériel yooyu ngir Sénégal man koo jëfandikoo waaye tam ngànnaay yi France ci boppam dafa xaatim ndax su xaatimul ngànnaay yi mënta jóge cim réewam loolooy jox naa dogal ñu jaay Sénégal Sénégal te buñ jaayee ba noppi jëfandikoo leen si kaw kun koy jëfandikoo xanaa askan wi nga xam ne dañuy manifester di génn di naqaru la nga xam ne moo fes dell seenu dënn turbine naan maan ba tey kii di Alsatex manifestant français yi ñoo ko gën a xam aka ñoo ko xam wala ndax saabu bu ñuy manifester lay jooyloo seeni gën foofee la jugee ab groupe la boo xam ne nii ma nga futti koo ci Etienne Lacroix turbine naan maan moom moo gën a mën a defar grenade lacrymogène ca France te moom mii day jaay ngànnaay Sénégal moo tax yéen kaay bi nag daal di ñëw ci manifeste yi nga xam ne am na Sénégal diggante vingt 2021 ak 2022 daal di ne saraax France ci biir coow li xamal ñu nag nan la France def ba jébbal Sénégal ngànnaay yi nga xam ne moo tax dëgg-dëgg ñu daal di dal ci kaw manifestant yi ba maar day taali sànni leen ay lacrymogène ba maar day taali critique yéen kaay naan maan maar day gi amagul ci réew mi wala président Macky Sall bés bu paree ak ñun ngeen xam ne jekkale nañu wala yéen kaay bi naan maan Sall day fi mu ne teg nag tànkam ci lenn rek lenn moom moo di nag tasaare assemblée nationale moom Sall day ci wasaare Daara ko la jëm laas daal na déet ma fas leen a jox feem nga xam ne moo war tax Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade ñu teggi tuuma yéen teg ci ñoom ñu bokkaat ci élection critique yéen a kaay naan kon bu yóbboo assemblée gaaw ko def de ndax nag weeru décembre man la Sall day tas assemblée nationale tasar bëgg nag élection présidentielle ak législative ñu amaloondoo ko ci réew mi kuy député ci assemblée nationale nii moom jàppal ni sa mandat bi léegi nga ñàkk ko fayal laaxu yéen bi naan man président Macky Sall koy tas kay waxtu woowu biir parti moom président Macky Sall ak coalition ma ngay tas tasaar ndax nag ki nga xam ne moo jiite seen association maire bi maire ya demoon keroog ci président Macky Sall mere nañ ko ba futtu yéen kaay bi naan ma moom Omar Ba dajale lu toll ci juróomi téeméer ak fukk ak ñaar ci ay maire ne leen kaay leen ñu dem weñ la xool Sall mu doon candidat ci réew mi soxna ya ku ca mel ni Victorine Ndeye Thérèse Faye Yaay faatu jaañ Ami Ndiaye ñibbi ak ay satu Ndiaye ma ne la daal di rongroñi ànd ak seeni góor Omar Youm Abdoulaye Wilane ak Mame Boye Diao ñu jënoog président Macky Sall wax ba géex nan ko nag ñu bëgg ci yow mooy nga jël mandat bi téyewaat ko sa loxo def troisième mandat ci mim réew ak lu mën a am sàll boo ñu bàyyee fu nu jëm ñun sa njaboot ndeke yoo moom président Macky Sall ma ngi leen di déglu de waaye jël na dogalam ne du doon candidat ci réew mi lii nag yéene kaay bi ne ma def na leen gàcce goo xam ne maar day taal ñu sippi ko nag Omar Ba waaye it sippi ko président Macky Sall naan ko nag ba nga xamee ni yow sàll jël nga sab dogal waroo woon fexe ñu ñëw ci pale bi ndax nag te nga ñu gàcce ci kanamu Sénégal wal fu ko di yéenaan ak lu mën a am moom président Macky Sall bu paree ci ay gii la muy dund dana neex ci réew mi wala le ko di quotidien nan kon ci mim réew la koy dundee ndax nee na gàddaayul demul fii lay toog président bu fallu bu nangoo mu conseiller ko le point yéen kaay naan man en tout cas QGM ña ngay rafetlu bu baax a baax dogalu président Macky Sall bi waaye tam di sàkku ci coalition bi wala it parti bi ngalawaay bu xiiroo ak ŋaayoo jub nañu boole doole yi 24 heures yéen kaay naan kon président Macky Sall bàyyi na du def ñetteel bi mandat waxtu wi nag moom moo di taxawaayu parti yi nga xam ne nañu saraax ci géem bi nag bëgg yor réew mi APR PDS parti socialiste réew mi taxaw Pastef ak AFP yéen kaay bi naan maan fi mu ne day bari na ci leader yoo xam ne waxatuñu ndax coowal kaso gi nga xam ne jabaajoole na ci réew mi laaj ba samp moom mooy ndax APR ak Benno Bokk Yaakaar ñooy doon may candidat Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall moom tënku ci national nationale sa sekk nag nekk ci diggante kurpañu président Macky Sall mu fule ko ak askan wi nga xam ne fi mu ne mere nañ ko boo moytul duñ ko woteel ab xob laa la ab xob boo moytul idi du ko am ci askan wi waxtu parti socialiste ak AFP ña nga bëgg a sóobuwaat ci lang gi bokkaat Pastef moom nar a bi géej fa yàllaaxu libération yéene kaay naan maan en tout cas numéro 2 bi ma nga nar a jëm nag ci ubbi information judiciaire donte baalu na day biram su lay jóg ñu tàbbal ko kaso te biram kat ba mu waxee la mu wax dafa taxaw ne sall ma juum jéggal ma tribune yéene kaay naan kon Ousmane Sonko yi dema ngay wax ca bitim réew ca nasaraan sa naan leen président Macky Sall bu fexee ma ni la ba man Ousmane Sonko bokkuma ci ci élection présidentielle ci réewum Sénégal dana metti wala soit élection du am wala yi réew mi élection bu fiy am dana am ci pëccëxoo goo xam ni maar day taali fit nag xeex gu metti dina am ci réew mi nama ba réew mi ko di jee naan en tout cas Ousmane Sonko na mu daan waxee mu ànd ak fit na daal wàññi na dose bi te dàqul sax nag janook président Macky Sall wax ak moom Ousmane Sonko ubbi na ci loolu ab porox ndollu l'info yéen kaay naan maan waxtu woowu Sénégal day ma ngay ragaju ak di génneel feem investisseurs yi nga xam ne ña ngi ca bitim réew ngir ñu ñëw soob seen loxo ci réewum Sénégal tribune yéen a kaay naan kon ma nga amee ci forum boo xam ni investir ci réewum Sénégal lañ ko duppee président Macky Sall naan jàmm dal kaaraange ak état de droit day moo mën a tax ma ne la réew moo mënti dégg ci àdduna wërngal këpp ñoŋ daal di fay am tribune sport naan man Sadio Mané nga jëm Al Ahli l'observateur naan man ca Thiès corom moo ko trahir mu wuti neen jëkkër far farwa amul lu muy def lu dul jël photo yoo xam ne xale bu jigéen ba daf ca def dung daal di jël foto yi nag daal di koy wasaare ci internet wi ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm Depuis hier, nous sommes confrontés à un problème d'électricité et la police refuse que l'électricien accède à mon domicile. Cette violence sur moi et sur ma famille, cette persécution, j'ai été attaqué physiquement. Mon domicile a été euh, euh, brisé, mes vitres ont été brisées sur la route du tribunal. Ce qui s'est passé avec moi ne s'est jamais passé. Mais nonobstant tout ça, j'ai tendance à dire que nous sommes prêts à pardonner. Vous êtes prêt à discuter avec Macky pour pouvoir trouver un chemin vers la présidentielle Ma candidature, je veux dire à M. Perelman ce que je veux dire. Euh, rien n'a été fait pour le moment. Nous avons vu une certaine presse nationale et internationale même. Hier, on m'a transmis un article de vos confrères du monde diplomatique qui semblait supposer que Euh, euh, avec l'annonce de la non-candidature du président Macky on, nous aurait enlevé euh, presque un, un moyen de, de, revendication et de lutte. C'est tout à fait faux. Jusqu'à présent, les populations sénégalaises se sont soulevées. Est-ce qu'ils pour la troisième candidature Non. Elles s'étaient soulevées contre la persécution de l'opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où on parle, le débat sur la candidature n'a pas encore, que si vous voyez que après l'annonce de cette non-candidature, qu'est-ce que vous avez constaté au Sénégal Est-ce que vous avez vu des scènes de liesse, de contestation Non. Ça, ça presque indifférent les Sénégalais. On peut rester là-bas et faire ses analyses. Ce que les Sénégalais exigent aujourd'hui, c'est des élections libres, transparentes, inclusives, et que les Sénégalais puissent leur président. Ce pas à Macky de choisir le prochain qu'il puisse choisir un candidat euh, consensuel dans son propre camp. Et c'est pas à lui, quelle que soit la nature des relations qu'il a avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais éprouvé de haine Est-ce que vous lui tendez la main Est-ce que vous lui dites, écoutez, vous avez fait un geste sous la pression de la rue, euh, d'après votre interprétation, maintenant asseyons-nous autour d'une table et parlons pour, en effet, apaiser la situation